donc dañ koy dooree ak euh, Walf Quotidien Walf Quotidien ñoom soppuloo li ñu def ci seen une euh, bokk na ci présidentielle ah suppression du poste de premier ministre euh, le PS casse les cordes mu mel ni Abdoulaye Wilane ni ki démb bi ñuy fàttaliku ndeysaan dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng nga xam ne démb la am at ci biir suuf ñoom nee na nous aurons un candidat en 2024 moom Wilane noonu la xam ne fu nekk nii daal parti socialiste takku nañ ba dëggal ñoom pour 2024 daal. Euh, oui c'est bien d'avoir un candidat mais c'est bien aussi c'est surtout c'est encore mieux de euh, de se remettre dans dans dans la massification. ah de son de de ce parti-là. ah moo gën moo gën moo gën ah. waaw il faut il faut il faut déjà avant di wax waxu candidat. Mmh. Euh, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent à euh, qu'ils entre eux ah ñoom. Mmh. Euh, Euh, comment dire Khalifa euh, Sall euh, Aïssata Tall Sall Aminata Mbengue Ndiaye etc il faudrait qu'ils réfléchissent à la solution de trouver une stratégie qui pourrait justement leur permettre de rentrer dans une véritable massification parce que tout simplement parti bi ñëpp xam nañ ni PS <laughs> même PS sax en général le parti socialiste parti socialiste PS ci àdduna bi mooy am tendance di di di déprécier wu parce que le mot parti socialiste ça ne veut plus absolument rien dire regardez un petit peu seen tuteur ou yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew comme tel que la France PS bu amee Sénégal c'est parce que PS France moom moo tax yaa ngi dégg euh, à l'instar de, de, de du premier président de la République Léopold Sédar Senghor donc ça fait que effectivement euh, euh le PS euh, n'existe plus il faudrait qu'il réfléchisse à une autre forme de coalition euh, bi nga bu leen di permettre ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom moom am ñoo nekk dans le même état d'esprit et que ñu mën a dajaloo booloo def benn say jéem ko tuddee je sais pas moi beneen affaire wala ñu bàyyi ko PS mais tour bi déjà sax je crois que c'est pas c'est bon gis nga il faut ñu xam ni lépp loo gis ci àdduna loolu euh, yàlla dafa am dafa am dafa am dafa am diir mm-hmm. dafa am dafa am diir maanaam maanaam dafa am moment bu muy bu muy juddu ak moment bu muy dee je crois que le parti socialiste euh, euh, dafa commencé di di di di di di di màgget màgget na torop te dafa nekk dans une dafa nekk grabataire mm-hmm. si je puis dire xam lu ñu koy waxee ci olof situation boo xam ne mënatul boppam dara. judd na màgg na euh, sukuraat euh, mm-hmm. pratiquement mm-hmm. parce que mënul mënul mënul mënul mënul mënul dellu si waat ce n'est plus possible parce que dafa dafa juddu euh, màgg. am doole màgget. Mm-hmm. ba pare nekk grabataire maintenant bi presque comme ni nga waxee ci situation sukkuraan. maintenant ce qu'il faut faire c'est réfléchir sur ay solutions yoo xam ne dina leen permettre ñoom ñee ñoom. ak seen état d'esprit bu fekkee ne dajaloo nañu ñu jéem a retrouver waat massifier waat. Mm-hmm. un grand mouvement ñoom ñoo xam nan lañ koy tuddee mm-hmm. bu la neexee ñu ko ne tuddee ko PS mais man je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne idée mais je crois que beneen idée bi moo doon ñu ñu tuddee ko neneen fexe def seen kamtalaay kàttan ba mën a dellusiwaat ci nguur gi parce que en 2024 un PS qui aura un candidat ça voudrait dire un PS qui aura perdus et qui seraient certainement, et je le dis vraiment en toute froideur, c'est pas de la méchanceté, mais qui serait euh, un PS qui, serait ridicule. Parce que finalement, déjà ça, balaa je suis en train de vous je l'aurais en face de moi, j'aurais posé beaucoup de questions à Abdoulaye Wilane, j'aurais demandé d'abord naka la <laughs> PS, euh, kan ngay jiital moment boobu. Mhm. kan que Khalifa Sall lay doon euh, est que ñan lay doon am na yoo xam ne digganteem ak Khalifa diggante Khalifa Sall ak ñenn PS. Mhm. c'est sûr que yàqoon na définitivement. mënatul defaru te am na ñoo xam ne à euh, la kuliyal dootu ñu mës a nekk ci ginnaaw Khalifa Sall bu fekkoon dans l'hypothèse où Khalifa Sall serait revenu au PS et qu'il serait candidat à une élection présidentielle en bu boobaa aussi euh, ñu bari du ñu ànd ak moom am na ñoo xam ne sax il préférait dem ci yeneen i kuréel parti politique ou defar seen yëfu bopp wala mu plusieurs candidatures au niveau du PS mais y quelqu'un qui xam ne Aminata Mbengue serai jamais candidat à une élection présidentielle Aminata Mbengue Ndiaye li muy xalaat lenn la mooy euh, gérer justement euh, ce HCCT euh, HCCT mhm. le Haut Conseil des collectivités territoriales essayer de faire en sorte que li mu fa yor mu téye ko et puis nekk en bonne entente avec le président Macky Sall pour espérer sax éventuellement avoir un autre mandat au niveau de ce même HCCT maanaam au Conseil des collectivités territoriales mhm. donc Aminata Mbengue Ndiaye loolu lay xalaat amatul kàttan bi amatul courage bi euh, euh, évidemment forcément li ñu waxawul aussi euh, elle veut aussi rentrer davantage dans ses conforts donc lii rek doy na ko bëggul leneen. tu penses ah, soppu la. ma dama ragal yàlla rek sinon ma war ci alxuraan. Mhm. ñoom bu ñu may xool xam nañu ne man li may wax dëgg la. Mhm. moom ci boppam bu mu may xool xam na ni xam naa dina ne waa ji fu mu jógee waaye moom ci boppam dina ne waa ji fu mu jógee waaye waa ji pourtant li mhm. xaw ma ko waaye li mu wax ni dëgg la parce que man du ma waxantu. Aminata Mbengue Ndiaye dootul nekk ci candidat à une élection présidentielle Aminata Mbengue Ndiaye li nekk ci xelam moom secrétaire général euh, national du parti socialiste li nekk ci xelam mooy nekk en bonne entente avec le président euh, Macky Sall bu paree éventuellement espérer avoir un autre mandat au niveau de ce même HCCT te ku bëgg loolu doo xeex ki fi nekk. Mhm. te ki fi nekk kenn xamul luy mbëbëtam si xam naa si tuuti. xam nga si as tuut daal. mooy mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi xool ban bunt la war a mën a ubbi pour mën a jàll ci après mhm. waaw kooku nag kan moo ko ñemee xeex du Aminata Mbengue Ndiaye mii mi nga xam ne dégg ma am na yeneen i soxla. Mhm. donc je crois que le PS est en désuétude. Mhm. le PS ne peut plus avancer déjà dans ce parti là tas na c'est fini parti dafa am juddu. dafa am dundu et dafa am màgget et dafa am dee parti bi dafa nekk en pleine euh, euh, kii Euh, ci waa comme ni nga ko waxee ah. sukuraat sukuraat mhm. et puis dafay dee définitivement il faut que mu am ñeneen yu bees. Mhm. et autre chose boo leen jëlee Aïssata Tall Sall ngeen bëgg ko indiwaat PS kan lay waxal. Mhm. comment elle pourrait évoquer Aïssata Tall Sall qui est aux côtés du président Macky Sall. je rappelle que Aïssata Tall Sall moo remplacé Mimi Touré. Aïssata moom mooy l'envoyé spécial du président de la République. benn la ci. moom la et puis dafa dafa dafa sacrifier lu bari. avant dafa créé woon parti tuddee woon ko. Euh, oser l'avenir euh, oser l'avenir mm-hmm. certainement bi muy wax oser l'avenir c'était avec le président Macky Sall. Mm-hmm. mais c'était plutôt sous-entendu. Mmh. finalement elle a atteint ses objectifs elle a un certain âge je rappelle aux Sénégalais autre chose Aïssata Tall Sall est la femme du du du du de l'ancien euh, euh ministre donc du du du du président Abdou Diouf xaw ma nu mu tuddati ancien fils euh, doomu euh, doomu ministre Abdou Diouf ba xaw ma nu mu tuddati xaw ma lan Sall. Mhm. donc moo tax ñu ne ko ay mais Sall la sant. Mhm. Sall bi ci kooku la jógee ministre boobu dama fàtte tur bi quoi ce monsieur là. Mhm. yaa ngi dégg donc kooku moom mooy jëkkëram c'est c'est c'est une dame aussi elle a un certain âge elle a atteint la soixantaine elle n'a plus elle n'aurait plus envie de faire autre chose ce qu'elle a envie c'est de de rester aux côtés du président Macky Sall. jusqu'en 2024, mais après 2024, elle ne pourrait pas, en mon sens, faire grand-chose. Surtout qu'il y a les autres qui sont derrière, qui sont beaucoup moins jeunes, euh, que lui, et qui certainement feront en sorte d'avoir une carrière euh, euh, dans euh, une vie politique, euh, au sein du, Parti socialiste. Donc ça va être très compliqué. Évidemment, Khalifa Sall, qui n'a plus d'argent naturellement, je suis obligé de les citer parce que ce sont les grands ténors de ce, Parti socialiste. Mm. si vous

am. qui veulent parti. Serigne Mbaye Thiam mel ni. waaw dafa bëgg parti bi waaye mënu ko wax. Hmm. waaye nu ko wax parce que bëggul gêner euh, Aminata Mbengue Ndiaye mais surtout bëggul gêner la mémoire de Ousmane Tanor hmm. parce que Ousmane Tanor Dieng li mu bëgg moom loola def et c'est monsieur qui. à mon sens, est extrêmement loyal vis-à-vis -vis de son ex-mentor, euh, mentor, si je puis dire, mhm. donc Ousmane Tanordien en mhm. l'occurrence. Mhm. Donc moom li ko intéressé mooy suivre la trajectoire de Macky Sall par rapport aux souhaits et aux vœux de feu Ousmane Tanor Dieng. Donc forcément, loolu si loolu lay continuer et puis après éventuellement euh, Aminata Mbengue Ndiaye serait fatiguée, elle lasse de continuer à gérer certaines choses, elle se mettrait à côté et éventuellement, elle pourrait lui transmettre très très très compliqué parce que moment boobu loolu amee ñu bari dinañ gën a beddeekuwaat te euh, donc ça voudrait dire que euh, parti socialiste euh, dafay dem ci ay émiettement mm-hmm. définitif mm-hmm. nga xam ne bu boobaa ku nekk day am foo jëm et on aura un petit PS qui va vouloir continuer à résister mais euh, qui mourra en fin de compte euh, euh définitivement voilà c'est tout donc euh, ça ne marche pas 24 bi waxin la nii rek ce sont des propos politiques venant de Ousmane Tan de de de de Abdoulaye Wilane waxu euh, wax la nii waxu politique la mais c'est sûr que li muy wax noonu moom certainement man gëw ma ni gëm na ko en toute sincérité waaye il faut que mu wax il faut mu wax et encore il faut que mu parce que wax moom mooy politique et que wax aussi mënul ñàkk surtout occasion boobu euh, bi bi bi ñu ko mayoon mm-hmm. xam naa bu occasion bi amul woon euh, cet anniversaire du décès de Ousmane Tanor Dieng c'est sûr que il n'aurait pas euh, mm-hmm. préféré se taire en attendant de voir un petit peu les choses évoluer parce que ñoom ci sen bop euh, ñi ngi dans euh, l'ombre des des des cieux d'accord alors pour pour pour tëj rek partie bi mm-hmm. rapidement Sow Poulo ñoom ah bu bu fekkente ne nii rek dañoo bëgg ah, defaraat seen parti. Mhm. vingt 2024 ñu am candidat wax mhm. yeneen ak yeneen est-ce que tamit jotul ñu woowaat kii di ah, Bamba Fall Barthélémy Diaz waxtaanaat ak ñoom. dajalewaat parti bi ba pare avant ñuy euh, xool li nga xamante mooy oui c'est possible mais yaa ngi wax ñaari yoo xam ne dina ma jaaxal. Mhm. parce que euh, Barthélémy Diaz mhm. je ne sais pas comment il pourrait revenir euh, aux côtés de Serigne Mbaye Thiam. Mhm. Barthélémy Diaz je ne sais pas comment il pourrait nan la mën a def pour dellusiwaat ci côté Aminata Mbengue Ndiaye. Barthélémy Diaz je ne sais pas comment il pourrait faire pour récupérer le parti socialiste Bamba Fall et ko tëjee Bamba ba ba ba Ousmane Tanor Dieng di def liste pour élection législative yi. Barthélemy Dias mi ngi woon ci kaso bi Ousmane Tanor Dieng dafa jël dafa jël euh, euh, Barthélemy Dias mhm. jël ay kayitam dugal ko ci liste bi mhm. ay déposé ko pour mu bokk ci liste bi pour nekk candidat euh, pour nekk député donc Barthélemy Dias bi muy nekk député mhm. bi ñu koy déposé pour mu nekk député ci list bi boobu mi ngi woon ci kaso bi moment boobu Euh, Bamba Fall am na lu mu waxoon. Mhm. ne woon na euh, man de euh, Tanor li mu def ànduma ci. Mhm. parce que xaw ma ana nu muy mën a jël ay prisonniers. Mhm. di leen def ci ay liste pour ñu nekk élection pour ñu nekk député boobu Bamba nekkul député bokkul ci liste yi. xam na ni il avait un petit peu un sentiment de frustration. pour pour pour pour sortir ces propos là déjà boobu am na benn espèce kii bu ci benn espèce su bu benn kii bu sedd ci ñoom seen diggante ñoom ñaar. donc ça fait que pense pas ku nekk dina dem yoonam Bamba Fall va essayer de de de la Médina. Mhm. mais am na benn waay bu taxaw bu nekk foofu aussi euh, xam naa ni pare bu ko rëqee. dégg maam dina dina dina kii lu ah, ñu koy waxee te ndigam dina. dina daam ah, daa daa ah, am doole de kooku dina am doole donc donc forcément te xam naa ni rek bu jógee ci moom euh, ak présidence Macky Sall sottal ko. Mhm. sottale ko. Mhm. dégg nga forcément Bamba Fall dootul exister ti parce que Médina rek moo tax muy continuer di wax. surtout que sax sot bi mais bu Médina jeexee xam nga ni amatul beneen possibilité. pour continuer à exister mordicus au niveau de cette médina là mhm. pour mën a continuer à réfléchir sur une solution pour le parti socialiste mhm. parce que loolu moo koy permettre mu mën a éventuellement gën a espérer taxaw mhm. loolu nag dina metti ci moom sol parce que waa jëlee euh, ku ñuy wax Messi mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy dafa takku ba dëgg te te na pour xeex te <laughs> te te ay ay ay ndomb euh, mais waxuma ndomb kii de ndomb tànk laa wax <laughs> ndomb bii nii sax tamit da koo da koo bari tànkaar la C'est très compliqué. Mmh. Mais Serigne Mbaye Thiam va va va, va s'en arrêter là quoi. D'accord. Alors, il va essayer de tenter de récupérer le personnalisme, ça va être très compliqué parce que amul une bonne sympathie au sein de ce parti. Mmh. Tanoon moo ko fa doon forcer di ko fa fi, il va continuer à se déprécier politiquement, mais en attendant, il va profiter de ce confort ministériel mmh. aux côtés du président Macky Sall. Ci président boobu sax nag saw pula ci la ñuy des ah dem ci li nga xamante moo di le journal euh, Enquête. Eh, weñ ordre enquête ñoom def nañ waaye monsieur moo la gën a bëgg waaw ay loolu dëgg la <laughs> loolu dëgg bu wér peg la alors soo pulo mm. enquête ñoom ah ndeysaan ñëw nañ ci Salla Ngaari Lamtooro euh, Lamtooro bu Guédé chéri chéri tata Marème Faye Sall alors après la publication des rapports mais liggéey bu baax <laughs> mu ngi noonu après la publication des rapports de l'IGE Macky Sall se fâche moom instant bi ni ndeysaan dafa mer ba futu mm. ndax li euh, rapport IGE bi génne mm. ci wàllu magu yi wàllum détournement ba tax na nee na daal ministre yëpp may nañ leen quarante cinq jours pour ñu def déclaration de patrimoine alors mais kan moo doon wax le président est le est le le le le le le le mieux informé dans ce pays ah kan moo doon wax mhm. Macky Sall mooy bi gën informé ci dëkk bi maanaam lépp xam na ko loo waaj a xam loo bëgg xam machin Macky Sall moo la ko njëkk xam kan moo doon wax loolu je disais toujours que c'était pas vrai <laughs> wala boog waxuma ko fi <laughs> waaw mais xam nga euh, si c'était vrai mm-hmm. kon il n'allait pas se fâcher aujourd'hui mm-hmm. kon du mer mm-hmm. waaye mer tey moo tax mu mer c'est parce que rapport IGE bi information yi ko jox dajale ko depuis ñetti at parce que ñetti rapport lañ ko jox information yooyu ñu ko jox ci rapport yi ci trois rapports ba jël décision bi ne moom wax dëgg yàlla may na leen yéen ñii 45 jours pour ngeen def seen déclaration de patrimoine. waaw c'est très bien. Mm-hmm. vaut mieux tax que jamais mais tout de suite man maa ngi xalaat ça fait huit ans que waxoon nga leen ko. Mm-hmm. mais pourtant mosu da nga leen bàyyi ñu def lu leen neex quelques ministres un tiers de ñi ñi waroon def ñoo di jot def seen déclaration les deux tiers ñu ko wala un quart même je dirais et les trois quarts autres defuñu ko. pourtant yaa ngi leen si bàyyi ba tey est-ce que c'est parce que rapport bi moo doon euh, euh, l'eau qui a fait euh, comment dire le, le la goutte d'eau qui a fait euh, déborder, euh, déborder le vase mm -hmm. est-ce que du loolu mm-hmm. moo tax nga dem xool-xool mu affaire bi devenu insupportable nga gis ne sa gars yi ñi ngi exagéré nga ne non comme sa maam ni ko noonu waxee ada adada. dafa doy. ah dafa doy. Mm-hmm. ala <laughs> est-ce que waxul Macky Macky dafa doy man je pense que ni. Uh-huh. adada <laughs> lu ma lu ma gis a dégg. waaye tamit sopp la kuy digle càngaay dafay fekk nga set parce que moom tamit suñu président ñu ngi koy xaar ci déclaration de patrimoine mais évidemment parce que mais en même temps aussi est-ce que moom bu waxee li muy wax conseil des ministres gars yi bu ñu génnee. Mm-hmm. du ñu dugg sénateur naan mais mais waa ji moom est-ce que foofu mhm. parce que ils vont se dire mais moom Macky Sall ñetti weer la amoon mhm. bi mu nekkee président de la République mhm. ñetti weer quatre-vingt-dix jours moins de cent jours pour déclarer patrimoine am officiellement parce que déclaré woon na ko parce que déposé woon na ko bi muy nekk candidat da nga waaye ki gagné moom mooy publier mais xam nga Macky Sall déposé na déposé woon na ko parce que képp kuy nekk candidat élection présidentielle da def sa déclaration kooku bañ xam mooy président de la république kooku dafa war a publier ba ñëpp xam kii lan la am mm-hmm. mais surtout pour moom mi nga xam ne pour un deuxième mandat la ñu xam au début mm-hmm. en li mu déposé woon mm-hmm. patrimoine bi mu amoon ak 2019 bi ci diggante bi lan la ci gagné pour sénégalais yi mën a xam mais mais mon grand ñun loolu xamuñu ko xamuñu ñaata nga gagné xam nga aussi mooy lu Fatou Ka wax kuy digle cangaay day fekk nga set day fekk nga set wecc. Mm-hmm. mais mm-hmm, pardon. Mm-hmm. Euh, ma koy dégg journaliste yi ak yenn euh, analyste politique yi. di ko wax à chaque fois. muy Macky sàll moom ci boppam. moo ne woon am na yenn dossiers yoo xam ne man maa ci teg sama coono léegi nag ay déclaration de patrimoine yi ak yii yëpp. bu fekkente ni ñu ngi continuer. di am ay dossiers yoo xam ne dañ ci teg coono tamit du am njariñ parce que loolu mooy problème moom c'est une question peut-être des fois ah. de de de de de sécurité nationale parce que des fois am na yoo xam ne bu génnee moo tax ngay gis président nekk président après au bout de trente ans mu mu def mémoire am bind mémoire am di wax ay secret yu grave yoo xam ne bu ko waxoon moment boobu mu nekkee président wala bu ko génnee woon wala bu ci tegul woon concom euh, Sénégal xëy na mun na mun na mun na mun na am une implosion dans le pays mhm. peut-être que c'est pour ces raisons là moo tax mu xam naa ni euh, dossier sangam wala dossier sàngam dama si teg sama ton conc parce que xam na ni bu génnee mhm. mun na tas Sénégal. te loolu des fois day mesurer enjeu bi. ak niveau de de gravité bi. mu ne xëy na peut-être jaru ko mu ne xaaral duma ko def. mais ba tey moom dafa ne 45 jours pour gars yi def ko mais est-ce que véritablement gars yi ñi nekk ci Macky Sall yabuñu ko. man pour man ils n'ont pas de respect pour lui. Ah, parce que xam nga lu leen neex ñu def. mais parce que mais oui mhm. foofu di def ah. yu gën a garaaw yooyu. Mhm. te ñoom amuñu benn problème. mais mais le cas mais mais xam le plus récent. waaw épatant c'est le cas de Abdou Karim Sall. mais Abdou Karim Sall mais li mu def nii mais mais nee naa la fi wax semaine bi yëpp mais mënoo ko def dans une vraie vraie démocratie 24 heures. 24 heures nga toog ci nguur gi président mooy décréter immédiatement suspendre ce kii. jël ministère am en général bu dee dëkk bi dafa am premier ministre jël ministère am moom euh, féetale ko premier ministre en attendant ñuy continuer di gérer dëkk bi. pour le temps que muy réfléchir pour xool keneen 24 heures 48 heures duñ ko xaar du toogaat conseil des ministres ak kooku. Mm-hmm. et pourtant mais Abdou Karim Sall moom wax yi yëpp ay waxu politique la. nee na faale ko gars yi waaw loolu moo jaaxal nit ñi nag. mais mais est-ce que du fi mu toog a dëgër. Mm-hmm. est-ce que amul luñ ko xamal est-ce que est-ce que respecté nañ ko dëgg-dëgg wala est-ce que ànduñu ak moom nii rek parce que dañu ne ñoo mm-hmm. mm-hmm. mooy président que kenn la ñuy fal. wallaay na euh, gars yi nee ñoom peut-être faale wuñ ko aussi mais dañuy jouer le jeu ba te xam kañ nga koy xam bu desee benn at ak genn wàll wala ñaari at avant élection présidentielle yi ba gars yi di commencer di comprendre Macky fan la jëm xam nga Macky mus na ne su ma waxee waaw sama gars yi du ñu liggéey su ma <laughs> waxee déet su ma waxee déet sama gars yi duñu liggéey su ma ah yooyu yëpp daal xam nga wax na fi yooyu mais euh, normalement wax boobu je crois que de communication la parce que gis nga yow munoo nekk président de la république ñu xam ñu xam amul baat ci këram comme chef de famille naan mu vraiment man sama doom yi jaaxal lañ ma. man daal xam nga xam nga mu ça réew mi la. mais ça veut dire que ça veut normalement waroon na mën a waroon na mën a moom wax li muy wax. ne damay nekk candidat parce que constitution mën na ma ko may. Mhm. waaw wala nekk candidat parce que man maa waxoon ni du ma nekk candidat. Mhm. taxaw foofu ba pare ne par contre. sama juróomi at yi dama fas yéene Sénégal dañ ma fal dama fas yéene liggéeyal Sénégal te képp koo xam ne sama wet di caaxaan wala di indi ay tappale naa la dàq pare naa ci yow te duma sax xaar deux secondes te faalewu ma leen te dinaa leen sànq parce que yoon may na ma ko mhm. waaw euh, ci ñi ko ñu ko ñu ànd ak moom. am mhm. na loo xam ne xamal nañ ko loo xam ni. bu éclater ça ça risquerait d'être gros pour lui. ou déclabousser la République. waaw <laughs> ce que je de ton <laughs> analyse uh-huh. li mu joxe nii mm-hmm. déclaration bi c'est juste une euh, manière d'être transparent aux yeux de la société donc tactique de transparence et d'honnêteté peut-être mais je pense que qu'il va qu'il va faire fi de tout cela après 45 mm-hmm. jours lañu wax il va faire fi de tout cela parce que ñi mu àndal ils se diront kii bu joxee lii nii xamal nañ ko loo xam ni tamit on pourrait le mettre face à lui mhm. kon ça serait contre lui mhm. ah, du coup mhm. lii ay euh, kii yu kii la rek pour euh, tactique poudre poudre aux yeux la rek poudre aux yeux mais loolu nañ si xam dara fii 45 jours mais nañ si xam dara fii 45 jours mais en même temps aussi mais mais Macky Sall est-ce que est-ce que mais gars yi quand même war na xam ni y a y a huit ans moom moom mooy président mais waxoon na ko ay ay ay njooñam mais gars yi defuñu ko mais moment boobu toon mi ngi kon ne di traité ak ces mêmes personnes defuñu ko de deful lu leen wax. mais ñu ngi ko ne di traité ño ñoom. Mhm. faale wuñ ko de xam na ko mais mi ngi gérer ak ñoom mhm. est-ce que. njiitu réew moo mm. metti ci position bi il faut nga nekk ci pour di équilibrer des fois di ñëw fii di xotti fële et est-ce que du loolu moo ko dal te ñun xamuñu ko parce que nekkuñu ci position euh, poste présidentielle déclaration de bi mi ah. ngi mi ngi mi ngi ci suuf déclaration de ah. patrimoine ah. bëggoon nañ cee euh, Charles bëggoon nañ cee ñëw bu baax a baax a baax mais malheureusement mm. le temps nous le permet pas mm-hmm. mais bu ñu amee xaalis daal nañ koy def fi ñu ko war fi ñu ko war a def di jàppale ñi nga xamante ñooy néew yu doole yi comme ni ko ndeysaan démb gis naa que Habib Niang muy def lu am solo ci xale boobu nga xamante ne fan yii yëpp ñu publier naan dafa feebar voilà mu ngi noonu